kenn koo xamante ni am na lu ëpp ectare cent hectares ci kenn benn doomu aadama. fan la xewee Mbour 4 démb son excellence président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye dafa xëy rek def descente ci terrain bi xool suufu askanu Mbour ana nan la ko ñi nga xam ni ñoom la ñu dénkoon doxale fekk fa nag doxalin wu salte wu doy waar woo xam ni ñi ko def boo xoolee li ñu def da ngay xam ni dëgg dëgg dëgg ñii amuñu xol ndax am na loolu ku am xol du ko man ci alal joo xam ne dañ la ko dénk te nga sikk kook ay nit ni sénégalais nga ñuy ay sénégalais ni yow wóolu la dénk wóolu la nga def ko seen alal boo ko mënee rek romb nga sax ay ndëng teeg yu ni mel mais ku am xol mënu ko vraiment ku am xol mënu ko léegi nag président wàcc fa def descente ngir vérifier loolu ana nan la tëddee mais ay mbir yu doy waar xew ci ñu ñëwoon nag ngir gën ci indi ay yaatal bale boobu nuyu naa leen bu baax fan wu gudd ànd ak wér sutura ak barke jàmmi àdduna ak àllaaxira yal nañu ko yàlla booy defal. ni ngeen ko gisee ak man gis ngeen ne bu ñu xoolee ni ñu seddalee mbir mi ñi fi nekkoon jiite ànd ceeg ak ñenn ñoo xamante ne borom alal lañu ñoo ko pàccu ñii jël ay dix hectares ñii jël un hectare. ñi jël 3 hectares ñi jël 5 hectares ñi jël 30 hectares ñi jël 50 hectares kenn ko xamantene amna lu ëpp 200 hectares ci kenn benn doomu adam te dara mayu ko ko lu dul dafa jege nguur kese. sacci sen problème principal bi ñu sëkk ak sénégalais yi dañu amul xol man mom jangat bima ci def bi gëna a rek man dama xamni lenn li ku ko même bu fekkee sàcc moo la taxoon jug même bu fekkee même bu fekkee moom bu fekkee te sàcc amul benn anam boo xam ni mën nga ko sàcce ba tax sàcc war ba tax sàcc jaadu wala mu dagan amul d'accord mais sàccin wi comme yow li ngay sàcc ñi ngi koy jëlee ci ñoom gis nga li ñuy dund xam fi ñu toll bu fekkoon am nga xol benn dimension bi doo ci àgg kon suñ ko mënee ngay gis ni mais c'est un problème principal mooy dañu amul xol xol lañu amul man loolu mooy di ma au même moment nous avons 3 hectares lañu la ville de ville de Thiès 3 hectares mooy 120 parcelles Nous avons la ville de Thiès joxe ay citoyens nga xool ci nous avons ñuy 100 hectares 200 hectares 300 hectares 10 hectares sax wala sax benn hectare wala sax 40 parcelles pour kenn koo xamante ne xam na ne lay waxal 3 hectares égale cent vingt parcelles nga ñëw di autorité ñu dénk la alal bu askan bi nga war ko ñëw séddale toppatoo askan wi ñu dëkke ko waa léegi d'accord xam nga wax naa ni amul genn anamu sàcc goo xam ne war na wala mu jaadu wala mu dagan mais tey bu fekkee ñëw nga ci gox bi te ñu dëkke gox ba gën a yaay ci suuf si ngay séddale waa léegi xanaa kon nga jël boog kenn ku ci ne su waree am benn parcelle ci séddale bi ngay séddale séddale ba séddale book cent quinze parcelles yi mu des cinq yi nga jël cinq yi sax sàcc ko xanaa lum bon bon bon au moins mais loolu sax sàcc gi book xaw naa sax ànd ak tout yërmande mais gars yi contraire la ñuy def exemple tey bu doonee tey bu doon tey trois hectares kese la nga war ko séddale soo ñëwee contraire bi ngay def amuñu xol da ngay ñëw jël cent cent dix parcelles yëpp nga naan tugaañ toog ci ba pare jëlaat ca dix parcelles ya jël cinq ya jaay ko su facturation soog a jël cinq ya ca desaat jël deux ya jox ko ña la neex soog a jël trois ya séddale waa gox ba toog mais ñi ñan ñoo leen gën a bon ñan ñoo leen gën a yées ba pare li gën a grave nag mooy danga koy def ba noppi ba ñu xëy jàpp la doo ci yem de mais da nga ciy jéemaat ay pexe encore ngir jàpp ni lafi fi newoon ba tey moo fi nekk. li tax ñu arrêté. li ñuy def ci sites yi nga xamante ne moom la ñu visé te dafa am ay acti rek yu mu concerné c'est pour bañ ñi nga xamante ne niñ ko xamee ñun ñu ngi nekk di gaawantu ci diggante bu ñu leen wàccee ci nguur gi ak bu ñuy dem ñuy gaawantu pour ñu signaler leen ñu am ay baux wala ñu am ay titre foncier pour ne état yaa ma jox léegi mettre ñu lu ñuy wax devant les faits accomplis maanaam tegal ñu situation boo xamante ne du ñu am lu ñu ko def loolu moo tax ñu arrêté lu ñu doy waar loo xam ne daf lay metti ba fa metti yam léegi nag yow sa xel ak sa xalaat yëpp mooy li ma jot a sàcc kat comme léegi jàpp nañu ma nan laa ci def ay pexe ba duma ko ñàkk yow nekkatoo ci de nekkatoo ci kersa ngir man am naa ay doom am naa ay sët ñu jàpp seen baay sàcc ñu jàpp seen nijaay sàcc ñu jàpp seen maam sàcc yow nekkoo ci problème boobu ak gàcce googu mais yow yaa nekk ci nan laay def ba li ma jotoon sàcc ma mën ko rawale ñi ñu bon ñi ñu te effectivement ñu ngi ko royee ci seen kilifa ci ki taxoon ñuy sàcc ci ki leen may possibilité ñuy sàcc muy Macky Sall ci ñoom ci moom lañ ko gisee ci moom lañu ñu jànge sàcc gi ci moom lañu jànge luubal gi moo waral gis nga ak soxoram googu ak iñaan googu ak ñàkk yéene sénégalais yi dara yóbbee na ko ba ci moom bi mu wàccee diggante fi mu ko wóoree ne wàcc na ak fi muy joxee defee passation gis ngeen li mu def te mu nurook li gaa def ay sabotage yu dul jeex simplement parce que da nga ko soxore sénégalais yi parce que da nga iñaane sénégalais yi dono da nga iñaane sénégalais yi alal da nga iñaane sénégalais yi yiw da nga iñaane sénégalais yi mbaax jàmm ak salaam lu mel noonu moom it la def def ay nomination commencé yokk ay salaire nga gis ni kon mburu faf ko fariñ ñoom ñëpp yam ku ci baax amul léegi nag lan moo tax ñu choisir gouvernement bu bees bi tay lan mo tax ñu choisir ko moy doon bañ lu mel non parce que yag nañ ko di vérifier ay rapport amna fi ainsi de suite ainsi de suite lu ne amna fi mais du won lolu problème bi moo doonoon mboolem ku daan juk dem di vérifier ji ci gouvernement bi dañ ko daan def ci lëndëmal askan wi lëndëmal seeni xel defuñu woon lu ñu gëm defuñu woon lu ñu lu ñu dara soxalu leen ci buñ ko vérifier ba noppi lañ la cay wax pour dalal sa xel la mais dara du ci dëgg dara soxalu leen ci kon suñ problème nekkul woon ñu ko yor ak ñu ko toppatoo suñ problème moo nekkoon ay njiit yu bon ay nit ñoo xam ne dañoo bon yées ci li ñu leen dénk lii moo waral ñu wàcc leen léegi nag di xaar lan ci gouvernement bu bees bii lan la ñuy xaar ci ñoom. kon du woon li fi gars yi daan def mais dafa am lu ñuy xaar ci ñoom kon bu ñu ko vérifier ba jël ko ba noppi ana lan moo ci war. te buñ ko jubbantee du loo xamante ne day delloo day ñëw ci ñi nga xamante ne ñoo yegg ci nguur tey du loolu ñi ma àndal xam nañu ko. dégluwaat leen bu baax attentivement dégluwaat leen bu baax. te buñ ko jubantee du loo xamante ne day delloo day ñëw ci ñi nga xamante ne ñoo yegg ci du loolu ñi ma àndal xam nañu ko. te buñ ko jubantee du doon loo xam ne day ñëw ci ñi yegg nguur tey. ñi may àndal xam nañu ko lii rek nag lañ soxla woon ñee daanañ ko jubbanti ci gëmloo ko sénégalais yi te du dëgg dañ ko doon def pour semblant dañ ko doon def pour daral sa xel comme quoi que ñi ngi liggéey suñu paree dellu ci lañ nekkoon ñun liñ soxla mooy koo xam ni bi mu koy def dafa am lum gëm bi mu koy wax dafa am lum gëm te mooy dafa gëm réewam dafa gëm askanam dafa jub loolu lañ soxla woon te lii lañu musta am ci Sénégal yàlla ñu suturaal ñu ngi koy soog a am kon jërëjëf encore une fois président Bassirou Diomaye Diakhar fay mais particulièrement jërëjëf premier ministre Ousmane Sonko coow yépp momla, moom la coow li coow Ousmane Sonko mu sell mi moo waral lépp tey sénégalais ñu ngi ko war a sant ginnaaw yàlla euh, euh, Seydina Ousmane Sonko lii la yàlla dogal léegi nag kon ñoom xam nañu tey lan moo tax sénégalais yi fan leen ndax d'ailleurs ñoom dañoo nekkoon ci loolu lu jiitu ñu leen di fal ndax dénkoon nañu leen ay alal ci as ci ci Sénégal gii ñu yor ko minimum quinze ans dix-sept ñu gis taxawaay biñ ci def jëflanteeg ñun diiraa ñu jëflanteek ñun mooy li daral suñu xel ñun sénégalais yi ba ñu jox leen. te malheureusement xam nañ ko te saa yu ñu waxee dinañ ko fàttali pour nga xam ni ñoom ñun ak ñoom ñoo bokk li ñu gëm. lii nag moo tax sénégalais yi ko doxal ba fu mu yem. incha allahu loolu lu dal xelu sénégalais yi la lu ñu gëm la lu ñu gëm la li ëpp ci sénégalais yi te bëgg réew mi ñu bëgg réew mi nag ñoo ma tax di wax sa kàddu gi lu ñu gëm la parce que gëm nañu ni yéen xam ngeen li tax ñu fal leen. parce que d' abord avant ñu leen di fal dañ leen cee fekkoon soog leen fal kon nag yàlla na di mottali yéene yi yaakaar bi ñu am ci yéen ba dénk leen yàlla na ci yàlla wan lu kawe suñu njort mais itam yéen yéene bi ngeen am ci ñun ba jël ndénkaane gi yàlla na yàlla gën a diisal yan bi te teñ ko yàlla na leen ci yàlla dollee taxaw dollee leen ci suturaal dollee leen ci jàppale ba li ngeen bëgg a réaliser ci réew mi ngeen réaliser ko. nuy na leen bu baax fanu gudd ànd ak wér sutura ak barke jàmmi àdduna ak àllaaxira yal nañ ko yàlla boole defal.